tontu la ma muurloo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi. ne ko def ndànk rek <laughs> bu mu yàqamte rek seen doo sama jarul buuxante ko am. aja mooy làmb tolluwaayu làmb instant bi noo ko gisee fi làmb toll nii ah làmb fi mu toll mi ngi sooxe mi ngi sooxe ndax jamono ji da nga doon dégg mu eh taxaw na de ah combat Balla taxaw na de ah combat Gris taxaw na de combat yi taxaw ndoo combat Bombardier taxaw na combat Garga taxaw na xam nga nga dégg combat yi taxaw mais ren dégg moo fi benn combat boo xamante nii leer na ma sama nopp bii na taxaw na mm-hmm. loolu nag euh, xëy na promoteurs yi ñoo daw xëy na promoteurs yi cent millions ñu doon fay mënuñu ko am ci làmb xam nga am na ñoo xam ne mën nañ bëgg buzz buzz mën a gën a xaalis mën nañ ñëwoon ci làmb ji pour gars yi xam leen ñu andi xaalis bi du jeex mais ñooñ bu ñu demee li fi nekk rek nga mën a bëre li fi nekk boo ko bëriwul doo bëre mm-hmm. kon li fi nekk muy as set leen ko yàlla mm-hmm. ñu bëri ko bu ñu sañ man su ma sañoon mbër fayee ko cinq cent millions waaye actuellement fi làmb toll fu mu toll nii li fi nekk rek lañ mën a bëre lu fi nekk lu mënuñu ko bëre te bu promoteur fayee lu mënul banque yi dañ ko topp am na promoteurs yoo xam ne dañuy waaye banques yi ñu ngi leen topp sonal leen huit pour ñu fay xaalis jàmbur. làmb kon fi toll ni yow pour yow mbër yi ñoo tax am nañ ci part de responsabilité dañoo war a wàññi seen i kase. non problème problème est-ce que kase kese la kase bu seer kese la. waaw mais kase la bu kase yu yomboon combat yi ba ñaari combat taxawal ñetti combat ah kase yi moo seer dañuy dimbali promoteurs yi dimbali sax xam nga yéen xam nga làmb. buñ la buñ la fayee cent millions ah nga jël trente millions yi def ko ci mystique buñ la fayee cinquante millions du la arrangé jamono ji nag boo bëggee dëgg-dëgg sa doole nga war a jël entraîné ba baax yéeg ci diine ba baax yéeg ci montagne yi buñ la fayee cinquante millions sax nga dem bëri ji wala soixante millions nga dem bëri ji ndax ndox tu es en forme mais boo ko bëggee fóor ci gàllaaj doo bëri de. mais sponsor yi nga xamante ne gisatuñ leen pour yow lan moo tax ñu daw sponsor yi. waaw xam am nañ ko nit ki rek doo nga bëgg pare. toog ci làmb ji rek jëmale suba li liñ bëggoon visi visibilité ñu xam leen orange xam nañ leen ku xamul orange ñëpp xam nañ ko mais dañ ko nen di yàq seen ci làmb ñoom loolu war nañ ko sóor nit ki booy tëgg da ngay lu ñëwagul man du ma bëgg nga wane sama saal bi nga wane ko ba ñëpp xam ko ma kon ne di liggéey yow di la jox xaalis mu nekk sponsor bu ñëwee dafa bëgg nga wane nga ànd ak moom lii ñeenti at wala benn at wala ñaari at bu jeexee day dem loo bëgg mu toog fa rek léegi loolu mu la jox ban changé am xam nañ ko bu pare mu ko ne di la jox kon moom mooy perte moo tax gars yi xamuñu làmb. ban taxawaay la CNG waroon na taxaw ci làmb ni mu mel nii. ah CNG sax làmb yi doo ko ëpp doole jamono ji mu toll nii hmm. làmb ji. Hmm. daa ëpp doole CNG de ndax. ndax ndax euh, coow lay nekk ci làmb ji bari te làmb euh, baaxe na coow làmb baaxu baaxee na coow quoi ndax looloo koy doxal loolooy doxal làmb ji coow waaye des fois nga gis am na ñoo xam ne xamuñu làmb day ñu yaakaar ne làmb bu ñëwee ci ko tur bi ay xeex affaire gëré gëré loolooy làmb loolu làmb de nga toog sol sa làmb ba làmb jeex ka dem mais boo yoo xam ne xamuñu làmb nga jël ay boo xam ne dajalee ne xamuñu làmb xamuñu dara benn booy saaga leen dañuy wane seen bopp mbër mi moo war balaa ma bëreet mu xëcc supporter yi ci guddi waxtaan nañu ne sama làmb bu ma ko yàq parce que làmb suñu cosaan la waaye ci la ñuy fay dégg nga wax samay supporter ne ah waaye wax dëgg yàlla sama combat bi day wax dëgg yàlla bëgguma ñu aj ma bëgguma ñu aj leen mhm. waaye dama bëgg boo la ñëwee esat toog ba làmb jeex am na am na benn esat combat boo xamante nii maa ngi fàttaliku combat boo xamante nii bi yeneen supporter dañ toog ba yeneen bari génn yeneen supporter yi génn ñu doog génn xam nga ban combat la nag dañ bàyyi la woon supporter yi dañ ba yeneen supporter génn ba dem yeneen doog génn xam fa xam ban combat la fàttali fàtte naa ko mais làmb noonu la làmb supporter ak supporter duñu xeex ndax ay yuuxoo la ambiance rek la ambiance bu am xeex neexul. ok ambiance c'est na c'est du lard. nan lañ mën mel ni mu meloon nan lañ mën a defaat. lan mooy wax seen supporter yi. soo yoree ay xale xale yoo xamante ni dañoo xër ci yow danga nga war di wax ak ñoom ñeneen yeelu picc day bariwul waaye ku la ci yàqal ku ne sa mbokk la am déet yéen samay mbokk ngeen bu leen ma yàqal diw diw ak lii ku leen tooñ bu leen fayu ku leen taal bu leen boo demee ba kër gi ngeen rek la ko mais ñoom seen seeni problème mënuñu ko fajee ci làmb ji ay xeer ak xeer di saan ay xeer lu xool keroog làmb ji def làmb ji am na yoo xamante man ci mal placé bi expliqué dafa rafetul ci làmb macha allah xam loolu am na solo. Ah. léegi nag am na combat yoo xamante ne ñu ngi koy wax boobu ba léegi ay combinaison ñi ngi wax Gris Bordeaux Tapha Tine Gris Bordeaux Boy Niang Boy Niang Balla Gaye booy Niang Tapha Tine <laughs> yan yan yow yan combat nga may tegal yan moom ngay tegal amateur yi ci table euh, yan nga gis. Euh, euh, Balla de Sénégal moom li bëgg li bëgg mooy Balla Gaye bëri. Sénégal li bëgg mooy Modou Lo bëri Sénégal li ñu bëgg Ama Baldé bëri Sénégal li bëgg Gouye Gui bëri Sénégal li bëgg Gris Bordeaux bëri daa gëj a bëri bu ñu jël bi baax na bu ñu jox baax na. léegi yow dafa la combinaison. yan combat nga bëgg diw ak diw <laughs> diw contre diw. xam nga ku taxaw ne man mënumaa bëri bëgguma bëri doo wax ci combat am. waaw ah diw non boo ko joxee rek da nga koo forcer. déggoo ma de bëgguma bëri diw boo ko ko joxee doo ko ko forcé Gris Bordeaux Tapha Tine ah man de déggoon naa Tapha Tine mën na du bëri Gris Bordeaux la ma déggoon man xaw ma nag léegi xaw ma changement daa diggante changement am na parce que nee na léegi bàyyiwu fi kenn kan nee na bàyyiwu fi kenn loolu mënul nekk moom la mu waxoon na ko téye rek Tapha Tine sama waa ko jël mu nappaaje la nappaaje xaw ma nag lu mu def fu muy defee lu muy def yéen géej géej waay <laughs> te moo jël kooku. Balla ah <laughs> Tapha Tine la laaj revanche Balla Gaye ci Modou xarañ loo Modou safaat naa mu amaa taxaw na nañ jël ci yooyu nañ jël ci combat yooyu waaye Gris Bordeaux boo ñàkk dara gënu koo neex ah ñaari géwél. yaay daa booy ñaari géwél yi bëri kooku sama combat la ay waay ji leen te géwél balaa nga koo jàpp nag balaa nga koo takk danga nga dem ba ca marché ba def neen. ah mook mook mook mook Balla Gaye waxoon nga sama combat bi ñu la fekkee sànq nga ne combat boobu sama combat la. Eh, eh, eh, xam na ne combat boobu bu taxawee sama bakkan laa ci teg Balla mook Boy àdduna bu tukki la waaye Gris Bordeaux ba ak ak Boy Niang làmbu tas la. <laughs> kon Gris Bordeaux Boy Niang mën na nekk événement. la ilaha illallah catat ki caca ki ki catat ki caca ki xam nga yooyu. boo ñaañu ci ruxu ci ruxu ak ci ruxu ci ruxu ruxu ci ruxu drague kii xam nga ci ruxu ci ruxu xam nga ci ruxu ci ruxu loolu rek ndeysaan dafa rëy dafa rëy. te maag Cheikh Niang jour boobu combat booy Cheikh Niang booy booy ñaale àndal ma ànd ak Gris Bordeaux. kan ma ànd ak booy ñaale Cheikh Niang. kan Cheikh Niang. Cheikh Niang doom booy Niang. waaw waaw booy ñaale àndal de. man ma ànd ak Gris Bordeaux làmb yu toj. làmb yu toj <laughs> Boy Niang Balla Gaye eh, loolu day yaa na ma fàkk yaa na ma fekk foo xamante ni wax dëgg yàlla ma mën a toog samay loxo jot ndax ko baabu kenn ma ko ñu nettali maa ngi dem ma toog bu bëggee ñu rapporté ko ma ak yow ah, Balla simeeku na booy Niang simeeku na. waaw ah Balla Gaye li mu yónni day mel ni socc supp la waaye boo xoolee Boy Niang. loolu mu laxasoo ci bopp bi ma nga jógee fële <laughs> dëkku naar ya Nimzaat Nimzaat la jógee. Salihina. laay laay la laa waaye bi ñëw na Casamance mani mani ko Balla Gaye bëjjët bi mu yor Casamance la jóge waaye booy ñaar li mu yor suuf seen boobu nag Nimzaat la jóge li kenn soo gis par ñu def arbitre. arbitre tiiral. <laughs> arbitre génn seen diggante Balla Gaye booy lamb li nga gis nga gis safara safara guy tàkk su du yàgg wul bi gàng. safara nga gis seen diggante. yii combat boobu bu taxawee man combat yooyu sax dama ko ragal man ndax coow la coow la bari la supporters yi man fekk foog ñu dalal leen yooyu bu taxawee dañuy dalal supporters yi waxtaan ñoom ak ñoom waaw ndax àdduna teraanga rek la <laughs> li fi wax yëpp combat la nag wax dëgg yàlla war nañ ko jox. la jox kan. <laughs> rëg rëg. <laughs> nga bëgg ku leb say fan. ah mais rëg. maa ngi koy woo mun ma ko jot dama ko soxla avant am lu ma ko waxoon. nekku fi mi ngi États-Unis mais États-Unis bëri moom. dafa am combat le 3 avril. moo kat. MMA. mais ah, moo tax mu ne états rek dina ñëw fi rek dina ñëw dina ñëw. dina ñëw hmm. sama waay dama koy draay rek ku baax la. léegi looy tàggatoo. ah di di ziar àdduna gépp di leen wax ne sama supporter yëpp li ma waxoon si Sadio ba Sénégal jaay yëpp bëgg ma ci. di ma ci woo guddeeg bëccëg mbay France Chris sama doomu ndey barke Serigne Salim Mbacké yéen mbay mbay bu nekk woon France nekk woon Lyon non Lyon muus lay doon du doon Lyon de muus waaw chat gâteau heureusement mbayee fa nekk moo tax mu nekk Lyon ak Cristiano Ronaldo dafa jàmm waa France diana di ziar laay sabatoro amigo mio per gracias per todo sempre aiutarmi per tengo todo telefono móvil, dinero, que vas a tu amigo mío en España, gracias por todo lay San Petro gracias <laughs> di gërëm nag waa Fass di gërëm waa àdduna daal lay gërëm daal àdduna àdduna daal gërëm naa leen moom sant naa leen gërëm naa leen gërëm ñi nga xamante ni <laughs> ñu ngi may seetaan règlement de compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi. ne ko let's <laughs> def ndànk rek <laughs> bu mu yaa xam rek seen doosamaan jarul boobu ko am.